ngi poobar say nen poobar say nen bu la kenn yàqal bu la kenn lakkal del poobar say nen waaw waaw loo mënti nekk foo mënti nekk del poobar say nen poobar say nen waaw waaw yow da nga war a firi da nga war a firi da nga war a poobar say nen bu la kenn yàqal bu la kenn lakkal del poobar say nen waaw waaw loo mënti nekk foo mënti nekk del poobar say nen waaw waaw poobar say nen waaw waaw poobar say nen agora, frita agora. Oi, sabali. Ayo pula, sabali. Oi, sabah, sabali. Sabali. Eh, wai, sabali. Gis nga nag waa kër gi ñoo gën a soof ci lu yàlla sàkk nan la nit di lekkee jël ab kaas ah naan ci ba mel nii lan moo tax nit ñi soof yow daal boo amee ku lay san ak yooyu daal ah yow daal da ngay bon voilà maa ngi booba. def maa la ngay wax rek. ah non non lay laa wax. gaz bi. waaw laa doon ah. ma gis ne. yéen wax dëgg yàlla ni ngeen di lekkee dafa silwise parce que du ngeen ñuy takkal ba mu ba mu oos. ah waaw waaw takkal ba mu oos nag dafa xaw a xewi nag. waaw waaw ma ne. waaw nag yow suba ba léegi lan nga fi bëgg lan nga fi liggéey lan laa bëggoon a xam. ah liggéey raxas naa duus bi pomp naa wàññi doo doon raxas. booba toilette nga ne raxas nga ko. waaw est-ce que gis nga yow ni mu mel. non laaluma ay toilette de duus yi laa pomp. mu yéen. ay duus laa raxas. seer bon bi.

loolu nit kenn du ko wax hygiène de. ma ne hygiène mooy ku salte nga laaw danga salte boo déggul français ma wax la ko ci olof dangaa salte mooy ñàkk hygiène naka jekk ma gis nag say marakis yu oos ak sa mu tilim mii laa xam ne yow doo defkatu lu baax te xam nga ma bëgg heure waxtu bee ngi bëgg a jot. dégg nga de heure dog daanaka léegi mu jot dama bëgg nga ñëw nal napp yeeg génnee kaas yeeg ñu waajal waxtu bi na sama nijaay yi ngi doon ci yoon bi woo ma léegi mu ngi ñëw na nga gaaw na foofu laa yem ak yow tilim bay bëgg a dee cim yow maa la bañ tuuti kii du ko fi jàpp lan moo fi jàpp lan nekk góor yàlla bu ni dem di wuti ay liggéey yu mbindaan ak ay yu bon bon yi ba day yàq yenn yi waaye tamit ma bàyyee maa ngi nii ami ga bu bon ba wax ko bon la du kenn sama xaalis naa wàcc tam mun naa def say nang. Waaw waaw. Foo baar say nang. yow da nga war a firi da nga war a firi da say nang.